sa dalal nga mbër mhm. dalal nga ki nga xam ne moo remplacé mhm. Robert Diouf Doudou Baka Sarr mhm. ak Sadio Ndeena Sarr mbaru séeréer bi nga xam ne bu doon ñëw Senghor nga lay takk su ma gisee yëkkati rek ndeysaan sa dëgg dëgg dëgg sama xel day dem ci Doudou Baka Sarr ak Robert Diouf mu taxawaay rek taxaw gu rëy kon boo na la yëkkati dañuy kontaan ndax démb ñëpp gis nañ yëkk yëkkati Modou Lo ci bopp moo ko bëggal boppam kon nag bu Modou Lo jógee ci défaite Mm-hmm. wax dëgg yàlla Yékini war na ci am kàddu mm-hmm. kon nag dañ koy xaar rek mu mm-hmm. ñëw ndeysaan waxtaan ak moom ci li nga xam ne sa <laughs> dëgg dëgg dëgg xam naa leen ci am lu rëy lu mu ci wax dëgg la dëgg la dëgg la waaye papa yow it euh, wax dëgg yàlla gis nañu taxawaay bi nga xamante ne am nga ko ci les jeune reporters gis nañu waxtaan wi nga xamante ne yaa ngi koy def ñoom gis nañu aussi ni nga leen di jàppalee ni nga leen di ñaaxee ni nga leen di dollee fit di leen dollu xam-xam yow it nga yàgg fi lool am wér ndax yow sa yàgg fi suñu njëriñ la waaw li nga def neex na parce que boo demee ba dalal Yékini rek mooy wane ne bàyyiwu leen kenn moom Yékini bu ñëwee tey nag dinañ wax la li nga xam ne <laughs> moom moom xam ci làmb ji ndax démb ñëpp a yaat ñëpp ñëpp a kontaan moom dëgg la waaw bu ko defee kon ñu dugaloon ñu Yékini rek euh, ñu ñëw waxtaan ak moom ba xam moom it na la gisee làmb ni maa lay nuyu di rafetlu wax dëgg yàlla ci teewaay bi nga xamante ne def nga ko ci émission bi ñu la invité di la ci sant bu baax a baax a baax a baax a baax tey dañ la daral fii nga xamante ne moom lañuy wax émission la vérité ma bëggoon a xam naka nga dundee defetu Modou Lo bi. waaw ginnaaw bañ sant yàlla julli ci yonent bi dama leen di gërëm di am mbégte trop teew fii di nuyu sama papa ji toog muy El Hadj Mansour Mbaye moo xam làmb lool euh, defet bi comme defet yëpp rek euh, ndax ku jàpp Tyson julliloo ko timis xaw ma gee <laughs> euh, may wax nga jàpp ma man mii mm. bëccëgu ndara kàmm toroxal ma mm. Balla Gaye lii bu ko bu ko jigéen ma xam du mbër ah lu tax ah lu tax. laa la wax lii bu ko jigee ma xam. ah lu tax lan moo koy tere ah, jig loolu. Ah, dëgg dëgg. Douta Mbaye bokkul ci làmb. nga mbaay Douta Mbaye. waaw bokkul ci làmb. Douta Mbaye yàgg naa am. ah waaw papa li Yékini wax moom doy na waar di. mu ne. nee na Douta Mbaye amul ci làmb. ah lu ko waral. waa léegi dañuy wax lu am ci làmb kon lu mu doon. làmb xam nañ caxabal. xam nañ wéyale. xam nañ mbootar bi. xam nañ fiir. xam nañ wéyale. mais Douta Mbaye loo réeré biir non non bokk ci làmb. ah waaw Yékini li ma la bëgg a dolli mooy damaa bëgg nga xam ne xale yi nag fi mu ne nii ay jeune talent lañu ndax làmb dafa avancé. Balla Gaye gënu ma nekk champion daan naa fi jël bu nekk mais mosuma daane nii mbër euh, man nag. du ma ko nangu ndax damay def recours CNG laa jëm. ah waaw papa loolu doy na waa de. ndax diggante ak moom ak ki ga xam ne mooy Modou loo waaw Modou Lo moo bëggal baal moo bëggal boppam Yékini. Mhm. mu dénk ko nag tumukaay lu rëy. Mhm. waaye nag ndeysaan Yékini xanaa xamoo ne du Bakka Sarr du du Damaay na ki nga xam ne moom mooy Sadio Sarr. Mm-hmm. Doudamay yàgg na am. Doudamay yàgg na am. ndeysaan <laughs> xam naa ne euh, dafa fekkul démb waaye Doudamay loolu réew mi euh, xëy na balla na ko def ci beneen façon bu leer rek. wax dëgg Doudamay yàgg na am de. yàgg na <laughs> yàgg na am de ñun fekk nañ loolu. mais façon bi moo bokkul jël say jël sa ngem aj ko ba ci kaw. brouette mm-hmm. la Doudamay. non loolu bii duñ ko nangu recours laay defi. fi laa CNG laa jëm nii. waaw waaw xam nga ni nag ñu ne mënu ma leen gàntal. Mm-hmm. mën naa fi jaar. mais Balla Gaye lii du ko jig maa la ko waxaat fii ñu toog du ko jig waaw baax na waaw kon baax na Yékini loolu kenn mënu ci def dara papa comme nee day def recours waaw boo fa jógee rek boo fi dellu si wax ñu wax ñun recours bi mujjee ma ma jaay Joal sama boulangerie ba mu fa yor boulangerie ma yor Joal di jaay mburu jër la ma jaay ko lépp pour pour Balla du dem ah waa kon baax na Yékini jërëjëf waaw ñu ngi lay gërëm bu baax a baax a baax a a baax. jërëjëf waaye nag Douta Mbaye yàgg na fi. ah waaw waaw waaw <laughs> Douta Mbaye yàgg na eh, eh, li ma ciy dolli mooy gone yi daan nañ way Douta Mbaye loo réeree biig mi ne cere gësam. taxawaayu menacé la taxaw. Mm-hmm. taxawaayu soppe. Mm-hmm. ndax buñ demee ba Yékini. Mm-hmm. jël na def recours. <laughs> kon sori na ci Modou Lo. dëgg la.